jëmm ji daal lu mu wax moom la wax su ne wow na ma ne koŋ su ñuul na mane ne kuk su ne weex na mane ne tal su ne tàng na ma ne jër sune ne sedd na mane ne guyu ku bëgg ma bëgg la ku bañ ma bañ seen waa kër yow ku koy jox am jox la ko ku jàmm ma yéene la jàmm ku ko yéene wut jàmm doo noppalu du ma la yéene jàmm kuy wax ci moom lu baax fu ma la fekk bu ma la mënee teral teral la kuy wax ci moom ab safaan bu ma la fekk bu ma la mënee duma duma la képp koo xam ne sa xol defoo ko ci yàlla bu ma la gis adduna ak àllaaxira